mooy maye ndox te léegi directeur entreprise bu neexoon ne léegi man maay directeur GPS borom xam nga du ma yooyu yëpp mais sama sama xarit la mu sa nekk sama rakk la mos sa nekk foog ma gërëm ko si kanamu nit ñi waaw parce que xam nga Sénégal bu ñu gisee dafa dooleen noo benn affaire rek ñu foone xam nga mais maanaam kii suñu borom dogal na lu muy dogal sama sama diggante ak moom a pare hmm. kontaan moo tax foog ma gërëm ko si kanamu nit ñi hmm. kii sama mag la hmm. kii sama mag la kii moo ma si koñ bii Mm. man changé ma ay xarit ñu ma àndal ma ay àndal ñu ngi nii ñii sama may xarit ñoom ngeen fi fekk ak artistes yi nga xam ne mun naa ne samay xarit la mm. mais ñaar ñii daal il faut ma gërëm leen si kanamu caméra mm. ma bàyyiwaat leen ngeen def seen liggéey nattaan naa ma comment ma dem cons ko fu mu toll nii xam nga ah ngóor léegi am na xaalis ngóor am ay jamono ñu ñëw ah. hmm. moom dafa baax rek ndax lii mu ñëw def nii mu mënoon na ko bañ a def man sama wareef laa def ndax ku xam duudu xam ngóor xam ne bu duudu xewlee ngóor moo war ñëw gérer xew mi loolu moom dafa baax rek waaye jarul woon sax mu koy wax te ku ne xam na jaan matt reggalu ko waaye da di adam mu di ko def saa su donc loolu moo tax bës bi suñu bës la xew bi sunu xew la bon moom nag c'est un di nit ku baax. bon ma yàgg ak moom aussi ñu bokk benn liggéey bu ñuy def mais musul changé benn kanam ba ma ko xamee depuis jour ba ma koy njëkk a gis ba léegi nii may waxee ak kanam boobu laay gis ci moom donc dama koy ñaanal sëy bi barkeel mu am ci njaboot bu barkeel ñaanal ko yàlla mu dund ba fekkee njaboot ba fekkee euh, Euh, kii doomam njariñu doomam. waaw mais noonu la xam nga moom boo xoolee deful dara sax dafa dem ta takk def ñaan ñaanu jàkk rek ñu may ko xam nga li war ci xew mi dëgg dëgg defagun ko moo tax sax ñu ñëw def ay jàllaa bi nii gis nga ma gi démb yaa ngi ñoom ñëpp ñëw nañ teew ci bés bi donc. mu ci ay waxam nee na ki mu tam Espagne la jógee comme fi ko nit ñi doon xaar ñëw ko parce que yaakaaroon nañ mu kenn koo xam ne ci suuf bi. loolu rëcc na ma. comme ni ko Doudou waxee daf na ah. dafa dem ba Espagne daal di fay gis xale bu baax daal di mm. koy takk te ñu mm. bëri dañu yaakaaroon ci suñu bis bi xale yi muy mm. àndal di jouer ci ñooñu lay jël mais dafa def sens contraire jël nga xam ne bokkuñu bii di loolu dara xam nga nit ku baax moom fépp foo dem ci àdduna am na fa ni Sénégal amee ay jigéen ñu baax noonu la France amee jigéen ñu baax noonu la Espagne amee jigéen ñu baax noonu la feneen ak feneen ak feneen amee ay jigéen ñu baax te it bu leen fàtte ni yàlla moo koy dogal moo koy takk ca aras donc nit ki mën na na Sénégal keneen ki nekk ba Inde ñoom ñaar ñu xamante sëy mais essentiel bi man pour man mooy ñu bëggante te ñoom ñaar bëggante nañ donc nan leen ñaanal sëy bi yàgg te barkeel. ñu ñëw ci maison de prod bi parce que gars yaa ngi wax maison de prod dafa ànd xaalis ndax maison de prod xaalis moo ko yor te gis nañ matériel yi ngeen utilisé kan moo nekk seen ginnaaw. non mais kenn nekkul ci suñu ginnaaw ñun dañuy liggéey ay ndaw lañ wax naa ko keroog ci interview bi ñu doon def dama koy bamtuwaat donc defaguñu dara aussi loolu lu ndaw la lu ñu tàmbali pour débuter suñu liggéey donc ñi ñuy seetaan nan ñaanal te xam ne ay xale lañ. te loolu nuy def defaluñ ko kenn ku dul sénégalais yi aussi loolu il faut mu leer defaluñ ko suñu bopp defaluñ ko kenn mais sénégalais yi lañu bëgg a te yàgg nañ di leen bëggal te dañoo bëgg a wéy di leen bégal kon nañ ñu ñaanal jàppale ñu dem ci chaîne bi aussi abonné wu GPS production dem leen ngeen abonné wu ngeen xaar affaire yi ndax li waaj ñëw nii sa waay dana doy waar de. <laughs> Ah, dana doy waar lool. absence waa ñu hmm. wax sax absence waa série Adja si xew gi fii. non Adja actuellement nekkul Sénégal dafa voyagé ñoom ameek ak mami aussi dañu génn donc loolu la yàlla dogal nekk ñu fi wax dëgg yàlla ameek ak mami yëpp nekk ñu Sénégal actuellement donc loolu la rek mais à part loolu ñi fi nekk ñëpp gis nga leen fi waa est-ce que itam du différence bi ak interview wax dëgg yàlla moom bu la fi fekkul léegi balaa ngaa dem dina ñëw wala boo demee mu ñëw. xam nga li ëpp solo ci àdduna mooy ngay ànd ak nit bëgg ko te yàlla tax gis nga nit booy ànd moom nekk ak moom te séntuwoo ci moom dara séntuwoo ci moom ñaar dërëm mu am wala milliard bi mu am koo nit kooku da koy te maak moom li nu boole du dara lu dul amour bi ñuy bi nu am ci lenn li nu bokk di ko def muy cinéma bi te yaakaar naa loolu du alal du jigéen du leneen ak leneen te looloo mën a yàq ànd donc sama ànd ak moom njort naa njort bu rafet ni dana yàgg parce que li nu boole la quoi non mais mënuma ci xajal ñu bëri parce que maak moom ba ñuy xamante kenn fekkewul donc tey jii tamit bu ñu demee ba nii nii nii du nit mooy jóge ci àll ba ñëw di ko yàq yàlla dimbali nañu ba am nañ benn maturité boo xam ne tey jii sama digganteek moom xam naa de yàlla na yéex dee moo ñuy taxaw. mais ay affaire noonu ak taxaw ci ginnaaw yow da gis nit ku ne suñu ginnaaw yi dama laa laajaat waaw mais dama laa laaj ndax gis nga nit ku ne suñu ginnaaw yow ndax gis nga ko gisoo ko man xam nga la laay faral nan laa mel man mooy lu ma gisul du ma ci wax waaw mais lu ma gisul. man lu ma tegul sama bët bii duma ci wax mais loo xam ne teg naa ci sama bët gis ne kii daa sàcc bu ma ñëwee ñu laaj ma dama naan leen daa sàcc parce que gis naa ko mais fekk gisuma ko mu sàcc du ma ne dafa sàcc. non moo tax ma wax la li ma la wax noonu. loolu moo tax loolu moo tax ma wax la li ma la wax noonu mooy ñun ay ndaw lañ di liggéey te nit kuy liggéey ku nekk ñaan nga yàlla am ca dara lii ngeen di def nii kenn ku ci nekk ci yéen ñaan na yàlla am ci dara. donc ñun ñii tamit ci la ñu nekk dañuy sant yàlla bëgg cee am dara moo tax ñu góorgóorlu ba créer benn affaire teg benn tànk di ñaan yàlla yàlla may nu ñu yeggaleeg suñu sago non concurrent liggéey dafam am concurrent yéen ñi fi taxaw nii da ngeen di concurrent ak yeneen site yi wala ak yeneen yi dama leen di laaj concurrent waa parce que da di liggéey dañuy liggéey waa mais qu'importe léegi nu ngeen ko jàppee rek sax wax salaam noonu la waaw mais loolu nag wax dëgg yàlla da ngeen di dem laaj ko ko waaw da ngeen di dem laaj ko ko nee naa la léegi boo fi jógee boo fi ñëwul dana la fi fekk wala boo demee dana fi ñëw amul dara lu changé waaw amul dara lu changé ci suñu diggante ñun ak ñoom. parce que baax nee na da jël moo tax a. bi may bi may ñëw nii ay bul laa jënd bul xam ngeen bul égaat ay bii égaat yu bëri laa jënd àndaale ko ndax man xale laa damay foofu léegi. damay foo yéen la xaar ngeen dem ma génn si biti léegi gas sama benn koow ci biti commencé bul man damay foo xale laa ñaanal leen ma ma màgg ci kanam tuuti rek pour soxna ah. waaw ma la wax nee naa la damaa jënd ay bul yu bëri bul mooy bii eggaat yi ñuy foowee mu ngi ci sama poche mi xale la amaguma âge bi. mu am est-ce tey directeur de production dina nangu dem ci keneen mu koy produit def ay théâtre. waaw mais yow xanaa doo seetaan américain yi wala tubaab yi wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu ça n'a rien à ngay dem di liggéey ci yeneen maison de production yi parce que ñun bul fàtte ne avant tout tamit mu som des acteurs même bu dee ay producteurs rek ay nangam ak nangam ñun ay acteurs lañ ay xale lañ. âgé guñ fi âge boo xam ne tey jii war nañoo dem toog ci bande touche bi pour di seetaan gars yi di doxal donc tey jii la ñu gën a nekk ci suñu digg ndënd tey la ñu gën a nekk ci li ñu gën a bëgg tey lañ ko gën a yëg sax dëgg yàlla donc amul dara lu changé ci suñu diggante ak maison de proté aatu mu ngi fi ma koy nuyu au passage sama xarit boobu moom it moo koy nuyu mu ngi amal liggéey bu am solo ci série bi ñuy def muy jabar di nuyu waale wëz suma xarit moom tamit di nuyu ñëpp képp ku nekk ci série boobu maa ngi lay nuyu en même temps di nuyu waale aussi directeur u euh, Evenprod donc euh, maa ngi koy nuyu bu baax monsieur Ibou Gueye di ko jaajëfal bon di nuyu képp ku fa nekk aussi jaa ngeen